Attention, on est nettement à ne pas manquer. Au nom du vrai de Sokone, Monsieur Ali Gallo, le coordinateur de la mouvement des étudiants de Sokone autour de la pour la réélection du président Macky au premier tour. vous invite à le grand rassemblement politique qui aura lieu le samedi à la place du Souvenir à la Corniche de Dakar à partir de 10h. Ce politique a pour objectif de mobiliser les Sokonois de la diaspora. Il sera le début de la campagne électorale de la mouvance pour la présidentielle du 24 février 2019. mbokk yi nga xamante ne safo Abdou Latif Coulibaly yéen ñi nga xamante ni ne safoo son excellence monsieur Macky Sall le coordinateur de la mouvance monsieur Ali Diallo vous invite à le grand rassemblement politique samedi 2 février 2019 à la place du souvenir à partir de 10 heures ah mbokki Sokone ak li ko wër bés baa nga noonu xam nga ne Ali Diallo su wootee ñëppay ñëw ku bëgg Latif Coulibaly ñu dañ lay bëgg kon nag man di ja ama maa nga ca acum